journaliste yi ñoo teew fi nga xamante ne mooy ci open presse bi di leen jaajëfal bu a baax baax di wax ne liggéey bi métti na trop des fois leen bëri des fois ñu bëgg a tuus yaa ma gën a xam répétition beeg yooyu noonu nuyu naa waa Grand nag yëpp nag bàyyiwuma kenn di jiital nuyoo bi nag di ko tox teg ci loxo mobile de mu daal di koy séddale ñëpp ñu ngi jëm nag ci combat bu mag muy le treize grand combat bi nag mu war a dox ci diggante gi nga xamante ne mooy serpent bu Grand Yoff ak ki nga xamante ne mooy Pokola waaye nee naa la diggante Grand Yoff la ak ki nga xamante ne mooy Pikine dañ koy jox mu nuyoo su nuyoo pare ñu tàmbali li nga xamante ne mooy question serpent nuyu naa la. naa la gannaaw ma sante yàlla sant Yesu Christa sant ma maman Marie mu sell mi di sant waa Grand Yoff ñëpp ah waaw. di sant waa Grand Yoff ñëpp tamit wax dëgg yàlla di sant sama yaay bu baax a baax a baax a baax waaw. balaa ñoo ñëw ci question yi dañuy ñëw ci mbooloo mi mbooloo mi lan la ndax mbooloo mi fi fekk tey jéggi na dayoo lool. waaw mbooloo mi man a ñoom dañoo yàgg. mbooloo man ak ñoom dañoo yàgg quoi wax dëgg yàlla parce que man ñàkkuma fayda benn yoon loolu laay wax chaque jour waaw mbooloo boo gisee ñu topp ma ful ak fayda bi may wane moo tax ñu topp ma. mais nga jëm ci grand combat sa diggante Koxla ndax keroog fekk nañ ko arène nationale di ko posé question mu ne combat bi bu neexee du ci entraîne du ci def dara te bu ñëwee da ngay daanu. waaw loolu waxam la rek mbala ñu dégg ko micro mu neex rek moo tax muy wax loolu noonu wax dëgg yàlla mais mooy li mu koy wax laa koy waxaat bu toogee ay mbokam ne ko combat bi day yomb serment mu ngi nax boppam waaw na waaj bu baax ay mbokam te xam ne serment ngi ñëw le treize incha allah. léegi nga teg ni combat bi bi du yomb ci moom parce que moom nee na combat bi dafa yomb ci moom. waaw. moom laay wax maanaam ñi mu doon bëree ak Serpent doon benn te buñ bëree ba tàggoo dina xam ne ñi mu doon bëree ak benn. lan maa ngi ñooñ bokkuñu. incha allah damay bëreeg moom damay xeexamoon te dama koy jàpp dama koy daan si kattanu borom bi bu soobee Yeesu Kirista dama koy daan le treize. ñeme nga man amul lu may ragal seetaan na samay combat. waaw nga xeex ak xanaa du mbër. mbër la te dinaa ko def comme fu ma jaaralee morom soobee borom bi. mais ñeme woo xeexal moom. damay xeexal moom incha allah si kattanu yàlla amul lu may daw si moom tapet la man grave laa dëkk. doomu grave laa amul lu may ragal. amul lu may ragal man doomu grave laa grave laa dëkk te amul lu may ragal. Pokola waajal bu baax te maa ngi ñëw. te incha allah le si kattanu yàlla naa la dumate na ma lay daan. waaw. nee na moo lay dalal moo lay dalal ci stade bi ndax day dox day dox naan dugg ci stade bi boo ñëwee mu bëri ak dina la bëriloo di nga xeex di nga bëri te dina la daan. waaw loolu waxu mbër la loolu yàgg nañu ko dégg loolu waxu mbër la rek toolu maamam la ba bés baa dina waaw bu bés bu bés baa le treize dina xam ne foofu du toolu maamam nit ki lool liggéeyul du la fa fekk. waaw aw ma papa mbër aw ma yaayu mbër maa ko bugg opté ko di ko def te incha allah naa ko wan ne aw ma papa mbër aw ma yaayu mbër dama ko liggéey gëm ko nekk ci waaw. sa eh, sa adversaire na eh, sa adversaire nee na jour ji incha allah dina la wan ni sob rek moo la dugal ci làmb mais yow waroo lekk xaalisu làmb. maa moom bokkuñu bu ñu taxee di nga xam ne ñaan ñu bokkuñu wax dëgg yàlla moom ndaama la day yooru moom raasu pël-pël la. day yor te incha allah le treize naa xool. moom nee na lay jógee yow ngay jógee Grand Yoff moom boo ñëwee stade ni mu lay dalalee si biir géew bi fu mu la ne toogal foofu ngay toog. nee naa loolu la ay fii la may dalal loolu waxu mbër la man Grand Yoff laa dëkk laa lay wax aw ma lu may ragal la treize incha allah damay génn de. mais sa adversaire daf laa lancer défi nee na woo taxaw benn une minute raag ak moom le tere incha allah na samp jaaga yi ñu xeex. nee na moom daf lay noosee cons la lay def da lay ba bës la na samp jaaga yi xeex rek. nee na doo njaago or njaago përëm nga. déggoo li ma wax njaago ñun Grand Yoff lañ dëkk. waaw ñëmi rek. ñun Grand lu leer laa lay wax. waaw di santar waa Grand Yoff ah. serpent nga duggoon Idrissa Laye Balde diggante ak jàmm nga tànn ko te boobu moom mi ci defet boobu noonu nga fa waaw maa ngi koy bàyyi xel bu baax nee na dama daan dama daan waaw dama daan jànkalaat mu toog ci kaw tribune métti ko moom moo ko jël ramas na ñëw nit ki boo koy jël ramas bul xaar dara bu at bi ne pire da ngay si kawam waaw te maa ngi koy xaar le jour bi incha allah waaw te dina daanuwaat si kàttanu yàlla dina daanuwaat bu soobee borom bi dina daanuwaat waaw. waa kii Falaye Balla ñoom xam nañ ma bu baax xam nañ ma bu baax laa la wax waaw ma ragaluma loolu waa di santaat waa Grand Yoff ah di santaat waa Grand Yoff parce que lii yombul nga woote ñu wuy si la lii yombul quoi maa ngi sant nag waa Grand Yoff yëpp di sant waa Grand Yoff mbooloo mbëri wax dëgg yàlla aw ma seen fay waa Grand Médine aw ma seen fay ñoom caatu piyol parcelle waa zéro heure. gis naa leen fi aw ma seen fay yaa ngi dégg waa Grand Dakar sant laa gaa yëpp bàyyi ma kenn di sant nag booy géej waay sama euh, nu mu tudd Siko maa nii wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant bu baax fu mu leen woo a a wax dëgg yàlla di sant sama benn grand wax dëgg yàlla aw fayam kooku heure bu ko woo mu yitteem yëpp sonn ci man yaa ngi muy booy bawal borom canaba wax dëgg yàlla kooku day sonn ci man te fukki dërëm bu ko jox heure bu ko yeewu mu dem fa comme booy bawal maa Modou Baye Fall borom parcelle yooyu it maa lay sant bu baax a baax a baax a baax Yaten Za maa lay sant di sant tamit Mandaw sama patron Moussa Fall maa leen di woo yéen ñëpp ngeen jàpp si combat bi sama coach Fadel grand Jibi grand Thier yéen ñëpp maa lay sant bu baax a baax yaa ngi dégg Formose men maa lay sant gis naa li nga def l'international Ousmane Sarr Yves Baraye yaa ngi dégg kii. Mor Ndiaye ñoom ñëpp maa leen sant wax dëgg yàlla aw ma seen fay gis naa ni si jàppee Nandi Fall sama grand kenn du yow gis naa nga bàyyi sa yite yëpp ñëw taxaw ma yaa ngi dégg di sant gars yëpp mobile doo tamit lamb bi sa lamb la dama bëgg nga wane sa bopp bu baax a baax nga ñëw xam ne sa raqay bëree yaa ngi dégg di leen sant bu baax yaa ngi dégg di santom waa grand yow waa grand Dakar mafia sa loi bi ñoom ñëpp waaw ñoom bés gars yëpp bàyyi ma kenn di sant nag sama grand Mamadi Mamadi yéen gis naa jéego yi ngeen dox si man yal na yàlla xeeb dool yi waaw di woo Brise tamit Brise gis naa ni ngay taxaw ci man wax dëgg yàlla ba may commencé premier combat ba tey gis naa ni ngay sonne yal na lay yàlla fay sa xol wax dëgg yàlla grand Ndiaye gis naa jàppale si wax dëgg yàlla waa benn yéen ñëpp wax dëgg yàlla. serba lakkal njaago yaa ngi dégg waaw waaw maa ñoom maam Ndong ñoom it jàpp nañ ci combat bu baax a baax waaw di santaa sama mbokk njaago yi parce que man njaago laa si ndey baay yaa ngi dégg ma ne Pokola yaa ngi dégg di santaan na booy nekk si kaso bi kaso bi képp kuy doomu Grand Yoff nekk 100 rek maa ngi lay ñaanal suñu borom génneel fa jàmm ba nga ñibbi si fii nii ñu nekk lalu hôpitaux yi feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp bañ dellu saat seen njaboot yaa ngi dégg di sant tamit ñëpp ah waaw yaa ngi dégg laas maa ngi lay sant bu baax a baax laas wax dëgg yàlla sama jigéen tamit aw ma seen fay gis naa ni ngeen di sonnee ci man lan ngay wax supporters yi pour violence ak mobilisation